nag tontowu xale yi there is no bye bye Mimi there might be a bye bye Ousmane waaye nag loolu yëpp dañ koy teg loxo commission bi mu saytu ko parce que nag lii moy état de droit chers camarades nous devons être fiers de notre démocratie parce que bëri na dëkk yoo xam ne yi heure bii génne woon nañu ay yata ki ngànnaay avons un système qui est respectable ku ñëw seet sa liste morom boo ci ay njumte yu mel ni li Benoît wax léegi nii parce nag politique dafa laaj expertise politique dafa laaj xarañ dafa laaj nga xam li ngay waaye di jaawale ay awa malheureusement Touré la sant ah di leen bind yoon ba ñetti yoon donc Ousmane del xoolaat li ngay